ko ci suuf ak yéen ñi ma bokk plateau yi mm-hmm. di ñaan liñ fi wax yëpp euh, dugg ci xol yi ñu tam waa Sénégal ak waa diaspora mm-hmm. <laughs> merci beaucoup bu ko defee nag dañuy jàll ci Mariem Ndiaye Mariem weer <laughs> laal de waaw vers la laal ak tuuti noir. mi ngi noonu c' est toujours un plaisir ah de partager ce plateau avec vous. Mm-hmm. di nuyu téléspectateurs ak téléspectatrices yu Walf TV. Mm-hmm. di leen euh, nuyu képp koo xamante ni itam yaa ngi si biir kër gi di la nuyu bu baax di la ziar commencé ci kaw wàcc ba ci suuf waaye itam ajaratu Penda Diallo gi ak ki nga xamante ne rek mooy coach maa ngi leen di ziar bu baax a baax ñu fas yéene rek àndandoor ak yéen tey ci waxtaan wi le mm-hmm. ci kanam lay doon incha allah. waaw bu ko defee si kanam incha allah ñu fas yéene moom daf ñuy accompagner tout au long de l' émission fas yéene partager ak ñun ay question fas yéene moom daal dafa pertinent moom mi ngi fépp daal <laughs> mën ñu wax loolu daal léegi nag bu ko defee dañuy jàll ci rubrique société te ñu ngi lay bàyyi nga dalal sa invité bi. Euh, moom moom moom je pense que euh, euh, Walfadjri donc kër gi xàmmee na ko parce que donc nekkatu fi gan professeur Cheikh Ahmadou Bamba Thiam une personne bu nga xamee ne que véritablement à chaque fois buy addu jëmale ci wàllum lu aju ci wàllum alors xarala yu yees yi donc maam dina am solo ñu koy bàyyi xel. alors tey ñu war a waxtaan jëmale ci li nga xam ne moom mooy alors restriction mooy bi maanaam yemale gi nga xam ne que yemale woon nañ sénégalais yi li aju ci wàllum euh, accès à l' ak li nga xam ne moom mooy réseaux sociaux yi am na ci sax benn bu nga xamee ne que donc euh, suspendre nañ ko ci Sénégal depuis euh, quelques jours si ginnaaw alors déjà professeur situation bi mu bi bi nga xamee ne que moom mooy bi Sénégal toll ba tax na. alors lu aju ci wàllum euh, euh, xarale yu yees yi li nga xam ne mooy alors euh, internet ñu ñu daal di koy couper ay semaines ci ginnaaw ba quelques heures sax commencé woon nañ ko di ko bàyyi. alors yow en tant qu'expert euh, lan mooy li mu lay inspiré cest dire boo xoolee situation bi alors de manière euh, politique de manière euh, circonstancielle yow lan mooy li mu lay inspiré ça ça ça te quoi en tant qu'une personne boo xam ne aussi yàgg nga di voyager jóge ci ay dëkk yoo xam ne que yu bëri la am tuuti xam-xam ci doxalinu doxalinu réew. waaw jërëjëf euh, Pathé euh, maa ngi dalal waa Petit Déj maa ngi koy wax léegi présentatrice man maa ngi dalal Petit Déj saa yu fi ñëwee euh, effectivement comme comme comme comme ni nga ko waxee xëy na day baax chaque fois ngay delluwaat tuuti ci ci ci ci ci histoire ci taarix mm-hmm. Mm-hmm. parce que réseaux sociaux toujours ma ma ma wax ko li tax ñu créé woon ko mm-hmm. mooy dafa am ay nit ñoo xam ne dañu bokk ci dëkk bi dëkk bi mooy si àdduna bi am ay xaaj rafet am xam-xam am loo xam ne mën na jëriñ doomu aadama yi. te comme boo seetee euh, li fi mës a am mooy euh, presse écrite presse euh, télévisée. Mm-hmm. télévision laa war a wax. Mm-hmm. ak ak rajo. Mm-hmm. te yooyu ay ay ay groupe wala ay nit ñoo ko moom. ñoo xam ne média classique média ñoo xam ne ay ay groupe ak ay nit ñoo ko moom nga xam ne ku leen neexul doo fa dem. te loolu loolu moo am te ñooñu aussi dañu am xam-xam war ko yaatal. moo tax besoin la affaire la la nekkoon balaa lii di ñëw. ñoom aussi ñu dajaloo mu am lépp nag am informaticiens comme ñun am ay journalistes comme yéen am ay sociologues comme ñeen yëpp dajaloo génne lu mel noonu. Mm-hmm. léegi moo tax donc li nga xam ne moo ko tax a jóg gis nga caisse de résonance boobu mës a nekk. Mm-hmm. da ko mës a nekk pour les esprits avertis euh, ñi nga xam ni amuñu amuñu baat. donc li ñu li muy def ni yëpp loolu mës a def Kader daf ko mës nekk te li ñuy wax euh, yoon du bàyyi ndoxam euh, ndox du bàyyi yoonam du moins léegi bi loolu ñëwee nag am avantage yi nga xam moom la am yëpp bon loolu soxla ñu si indi parce que avantage bëri nañu mm-hmm. ñëw ba indi inconvénient yi parce que li ñuy wax saa yoo gisee dara loo xam dafay jëriñ rek dina kenn koo xam ne daf si pour kii bis bu nekk sama mbokk jigéen ñi laa laa si mm-hmm. euh, da ngay nekk jigéen sa sac ak fii stali bi mm-hmm. ak sa portable bëggee ñu ñu livrer la dara soo bëggee lu gaaw moom ngay jël mm-hmm. donc am na njëriñ pour pour yàq am njëriñ pour gi ak paaka bi nga xam ne moom ngeen toggee aussi mm-hmm. sama mbokk sondeeg saareen xam ne am nañ si plateau bi mm-hmm. dañ si togg euh, pour euh, togg ñi si di ko jël di si di paaka di di ay nit donc loolu yëpp daf si am léegi nag fii def naa am benn idée boo xam ne da ko gëm di ko di ko partager ñëpp di ko dégg bu yàgg ba da nga koy defee peut-être plusieurs façons wala dem di ko manifester si mbedd bi. wala di ko bind wala dara. newoon naa bi bis dina ñëw dina évoluer ci ci ci ci cyber bi ci internet bi donc mooy mooy nekk li li moom la ñuy wax hacktivisme. Mhm. xam ne lépp loo doon def mooy protestation euh, ñaxtu euh, lépp loo doon def ci suuf rek ci vie physique monde physique bi. Mhm. léegi mi ngi ñëw si internet bi te boo seetee. loolu activisme numérique activisme euh, numérique en fait. Mhm. léegi en fait non parce que même kii bi la parce que mooy génn kaas ñu dégg la. nga def bruit. donc bruit boobu ussi nga doon def si mbedd bi léegi am na beneen bunt boo xam boo ko defee léegi hmm. dina la indi dina la mën permettre nga def bruit bu gën a garaaw parce que bii da def bruit bés benn bouton rek mu tas àdduna bi hmm. donc léegi les choses ont, ont beaucoup évolué donc activisme boobu. Mhm. te foofu lañ jëm te pour man jàpp naa ñu ngi soog a commencé gisaguñ dara. ñu ngi soog a commencé. waaw jàpp naa mi ngi soog commencé te gisaguñ dara. Mhm. parce que xëy am na yeneen yoo xam ne peut-être mi ngi si ginnaaw yoo xam ne xëy na nit ñi ko sax te yàlla buñ ko xalaat. Mhm. mais xam naa ni euh, bis dina dina parce que kenn mënu si dara c'est c'est c'est c'est incontournable. c'est incontournable alors ah yaakaar naa ne que alors ñu ñëpp xam nañ ne que bëri na ay mbir yoo xamee ne que am na te mu ngi tàmbali woon ci euh, benn réseau social bu ñuy tuddee Facebook nga xamee ne que ça dem na sax ba euh, daaneel nguur jëmale ci ci ci wàll wi est-ce que nekkul ne que euh, restriction yu ñu gis fii peut-être alors résultantu alors fait yooyu ñu doon gis donc internet doon ko doon ko def moom moo tax ñu jël décision yu ni mel. léegi nag bi bi bi loolu ñëwee léegi violence bi léegi dafa dem léegi ba nekk ci internet bi. Mhm. avant mooy ñu lay dóor wala ñu lay violence sexuelle wala lépp li mun def loo xam day feeñ sa kanam wala sa yaram mm-hmm. léegi violence bi am léegi-léegi mm-hmm. du du du du du du feeñ mm-hmm. ñi gis nit boo xam ne dafa nekk di souffrir euh, bay waaj a bay waaj a dee te te li li ko ko teg ci internet bi la jógee moo xam fu munti jógee léegi nag euh, pour ñëw si si si si li nga wax nii léegi day dem benn benn instant boo xam ne euh, dañuy gis ne dara bu continuer dina indi benn musiba mais ku ne ak ni nga ko gisee ku ne ak ni nga ko gisee parce que ki nga xam ni moom sécurité mooy liggéeyam moom sécurité lay lijjanti ñu ne nga teg benn nit si buntu fii ne ko ne ko ku dul liggéey wala fajji du fi dugg am ko fi liggéey yaa am di ko seeti mu ne ko fi waroo fi dugg xam nga loolu exception la parce que yaay koo xam ne euh, fii lay liggéeyee xëy na dafa ñëw pour nuyu ko daal dem mm. xam nga ko liggéeyam la doon def mais am na lu bëri lu mu yàq parce que kooku su demee këram dina ko ne maa maa ñëw sa bureau sa bureau di la seet si mm-hmm. ñu ñu toroxal ma foofu donc donc ku nekk aussi loolu nañ si bàyyi xel ku nekk ak li ko intéressé mm-hmm. ki nga xam ne aussi li ko intéressé mooy liberté d'expression nga xam ne lu day day jaay parce que sa gis Sénégal léegi mm-hmm. euh, et puis baax nga jox ay chiffres boo seetee am na lu mat euh, plus de vingt millions euh, ay lignes téléphoniques si ay puces loolu moo population Sénégal. Mhm. Euh, boo seetee bu ñu ñëwee ci internet kese lu ëpp 10 euh, millions ligne internet am am na Sénégal. 10 mhm. ligne ligne internet. te boo seetee 96 pour si mobile la inter si téléphone mobile la. parce boo seetee temps yi ngay dégg euh, kii numérique fraction numérique bi. Mhm. pour pour pour gap bi. par exemple nekk si àll bi ay Fongolemi wala ay Kilikoro ak sama mbokk pël comme man séeréer laa. mën si jot li li ñuy def mooy. kii téléphone. moo résoudre gab boobu. d'accord donc dafa léegi dafa dafa parce que li ma wax nii soo gisee ma si ma si ma si ma si ma dafa agsi te moom dañ koo war a dalal ci plateau mu ñëw toog fas yéene de euh, partage ak ñun débat beeg waxtaan. waaw xam nga dafa doon ndékki mu tax ab sowel la quoi. <laughs> ah professeur pourtant léegi laa wax ne ndekki moo tax mu tardé sooy nii. professeur Alioune Sow du la baal yow laa tudd léegi dama tudd. professeur nga daal nga daal nga daal professeur Alioune Sow du la baal non non xam naa leen non sooy nii moom pourtant léegi léegi laa. ah sooy nag ndekki moo tax ñu tardé donc bu benn excuse. ah du la baal te xam nga te xam nga moom dafa am ay coups irréguliers parfois. yow bàyyi noonu rek. waaw il faut faire attention ah tey moom daanu na daanu na tey. naan ndox kese la de. ndox ndox tàng rek laay. waaw mais mag bi naan ndox mu tàng rek lan moo waral loolu daf koy layal quoi mais garaawul. damay def comme chinois yi je vais pas trop vous importuner dans votre. waaw effectivement non xam naa di nga ñëw fayu mais garaawul maa lay xaar <laughs> donc je disais que. Mhm. Euh, impact bi nga xam ni. Euh, peut-être ñu bàyyi ko mu nuyoo waaw. oui non mais sant leen ah gërëm leen très fier le temps d'en parler mais élan bi mu nekkoon dafa baaxoon ba nga xam ne. j'ai tellement envie de pour dellu si waat ak a dóor tuuti pour. pour mu wàññi jox quoi mais grave. je disais que li ñu doon wax sànq mooy bi nga xam ne moom mooy si internet bi. mooy protestation bi nga xam ne moo si monde physique. dem ci monde numérique bi. pour man dafay dafay day day day soog a commencé. Mm-hmm. Mm-hmm. donc temps yi ñuy wax printemps arabe yàgg na mën na mën na mën na dix ans. Mm-hmm. donc leçon boobu sax ñu bëri bëri si lañ jàng ba nga xam ni léegi lu mel noonu dëkk yu bëri bëri dañ koy dañ koy éviter. donc moo tax ma ñëwaat ne sécurité dafa am parce que suñu nee sécurité. sécurité publique défense nationale suñ ko waxee rek wax ji def frenkulaay mm-hmm. du sax ñuy continuer mm-hmm. parce loolu kenn du si werante kenn du si kenn du si kii donc li ñuy wax ni mooy li nga xam ne moom la ñëpp di gis di si teg seen bët ba pare ñu ñu ñu mën si ñu mën si kii donc mm-hmm. impact bi fi ma doon wax mooy euh, gap numérique bi ñu doon wax noonu loolu moo tax mu résoudre parce sama mbokk sowen yi nga xam ne avant mhm. euh, internet mënu woon egg si ñoom mhm. bi internet mobile mobile bi ñëwee ci lañ si soog a jot mhm. d'accord ba pare léegi dañu am am nañ possibilité wu alors wax moment bu nga xamee ne que amuñu amuñu ko woon à travers internet amuñu ko woon effectivement mooy mooy résonance bi nga xam ne moom la internet nekkoon moom la nekk moom moo ko taxoon a loolu ba léegi dara soppeeku impact yi nekk impact économique maanaam kii euh, la jógee si si nekk donc moo lay wan ne Euh, situation bi jàpp naa ne euh, day day day soog door te du Sénégal kese ñëpp ñëpp si bokk yam parce que dëkk yëpp am problème ak ak internet. mais mais ça fait peur tu fekkee ne que tey euh, alors euh, borom xam-xam bu mel ni yow di ñu wax ne alors situation bi day doog a door gisaguñu dara. Mhm. ak faay yi nga xamee que mu ngi am sur internet yëpp. Euh, mhm. circonstance situation yi nga xamee moom mooy ñiy dund présentement alors bu ñu xoolee sax juste dimension sociale bi ñi nga xamee ne que am na ay nit ñoo xamee ne seen seen dund yàqu na seen seen seen seen seen seen liggéey yàq yàq nañ ceeg yu demee noonu. Mhm. ñu taxaw du ñu waxaat présentement que ne donc la situation ne commencer selon sa gis. gis-gis uh, mais aussi restreindre internet est-ce que ce n'est pas une manière d'entraver la la liberté d'expression la démocratie dans une certaine mesure. waaw léegi moo tax ma bëgg ñu séparer ko en deux. Mm-hmm. su ñu nee par exemple sécurité défense nationale sécurité publique loolu leneen la su ñu ko waxee rek wax ji day frenkulaay mm-hmm. donc su ñu ñëwee si si beneen côté restriction yi. Mm-hmm. effectivement restriction moom mais xam ñëpp ko yëg. même ñi koy tëj yëg parce que ñoom dañuy am dañu ay mbokk ne extérieur yoo

beneen bi aussi mooy boo seetee euh, jëmmu euh, euh, violence. Mhm. en fait am na benn violence boo xam ne loolu kenn kenn nangu ko parce que am na ñoo xam ne seen àdduna si boppam si lañ koy yàq. Mhm. fake news yi ngi yi yi ngay dégg. fake news yi ngay yi ngay dégg mais loolu lu lu lu garaaw la. xam nga mooy mooy sos. wax loo loo loo xam ne amul. Mhm. mais loolu mbir la boo xam ne loolu kenn mais diine yi nga xam ne moom moom lañ am ñu ñëpp ku ci ne am nga diine boo boo bokk diine moo njëkk tere fake news fake news mooy mooy ah, si alma wax ah, mooy mooy fen mm-hmm. mooy ko du ko mais ne dafay day day day day indi ay musiba mm-hmm. mu ñëw ba ci deep fake deep fake tere waxoon nañ si te def naa bi bi ñu si waxtaanee fii euh, mesures yu bëri gars yi ji lañ ko si mm-hmm. donc bu leen xeeb euh, li ngeen di wax ni mesures yu bëri ji lañ ko si deep fake boobu pas parler ah. de, de tout cela sans ñu évoquer la dimension économique sinon financière ah. c'est-à-dire ñun sax ñi nekk ci média bi alors internet dafa am beneen masse euh, euh, euh, financière boo xamee ne que daf koy dugal ci sunu sunu sunu gafaka mhm. cela montre que restriction yi aussi am na loo xamee ne que wàññi na ko ci ci ci ci ci wàllu ci ci ci wàllu koom bu baax sax waaw bu baax sax Euh, déjà mais si état bi si boppam fu la njëkk commencé. ci état moo njëkk a waaw mais ñoom ñoo ñoo si ñoo si ñoom aussi am na benn impact bu mu am si ñoom parce que euh, euh, lu bëri loo xam ne soo koy jëflante ak ñoom. Mhm. mais si internet bi ngay jaar. donc su internet bi internet ci lay jaar. te bu fekkee ñëpp ñi si ëpp Sénégal si téléphone lañ koy lañ koy defee. Mhm. mooy ne am nañu am nañu problème. si si wàllu boobu. donc mm-hmm. ñoo si ñoo am na ay problème même côté côté sécuritaire sax am na si impact parce que am na léeg-léeg yoo xam ne information yoo xam ne peut-être soo koy partagé ak ak ak ay nit. Mm-hmm. Euh, par exemple boo nekkoon par exemple sa koñ ñuy agressé ay ay ay nit foofu. Mm-hmm. Euh, booy bëggee woo woo police te fekk euh, am ñoo am nañu ay ay. site internet am nañu ay. réseaux sociaux ak ak yëpp mun nga fa def ko donc yooyu day day wàññi si ñoom. bu ñëwee si wàllu impact bi mais Sénégal secteur informel bi. def naa moo moo moo kii moo moo moo dominante si kii bi ci mm-hmm. Sénégal te ñi si ëpp ëpp ëpp ëpp ëpp su sa mbokk jigéen yi nekk si e-commerce bi def naa a gën a sonn sax parce mm-hmm. que jigéen ñu bëri bëri bëri seen liggéey cent eh, amuñu magasin mm-hmm. seen kër la ñu dugg si euh, Facebook yeeg Instagram yeeg yu demee noonu di fa jaay loolu jeex euh, xale yi nga xam ne euh, dañuy dañuy dañuy dañuy def même livreur yi si la ñuy liggéey te naa li nekk si ay livreur Sénégal def naa def naa kenn mënu ko compter donc boo seetee aussi journalistes yi. Euh, ñu bëri par exemple émission bi man ñi nga xam ne ñu bëri ñoo ma yónnee message soixante quatre vingt quatre vingt pour cent bi. Mhm. si kii plateforme digitale yi ngay seetaan. parce kenn toogul sa kër. Mhm. Euh, di mhm. moom euh, financier bi moom kenn mënu ko kenn mënu ko naat si si si côté boo ko mënta jëlee. entreprise yi aussi ñu si bëri bëri. seeni kii administration da ngay xool par exemple boo seetee yéen ñëpp xam na am am ngeen groupe. coordination yooyu. wax mosoon naa wax benn ah, benn jour. Euh, soo ko fàttaliku ma ne leen euh, dañuy jël suñu suñu suñu euh, vie professionnelle ak suñu social bi yëpp dugal ko si si internet bi ak si group yi. Mm-hmm. mais man leen bis bu ñu coupé waxoon naa bis bu ñu coupé. Ah, réseaux sociaux yi mais groupe groupe du fonctionner. dootul fonctionner parce que dañuy gis gis naa entreprise boo xam ne. Mm-hmm. si léegi léegi la ñu soog xam ne réseaux sociaux. moo moo mooy seen àdduna mm-hmm. parce seen lépp seen groupe yeeg mm-hmm. seen information li ñu liggéey lépp lépp entreprise la bu mag ah mm-hmm. si ñu liggéey yëpp yëpp si groupe yi la koy defe c'est-à-dire on dañu dañu toll circonstance bu nga xamee ne que alors euh, euh, euh, wax nga ko j'essaie de me répéter un peu ma ma yokk ci dara mooy alors suñu dund dama suñu vie sociale suñu vie professionnelle alors même dans une moindre dans une moindre mesure sax moom mooy alors sa sa spiritualité donc dafa dafa aju ci ci ci ci ci internet parce que donc quand tey ji on voit certaines personnes ñu nga xamee ne que pour ñu pour ñu mën a xëy suba julli sax faw ñu toog déglu. Mhm. alors li nga xamee moom mooy euh, seen seen seen seen Coran. Mhm. à travers donc seen seen connexion internet. Mhm. alors c'est c'est assez intéressant quand ça se passe comme ça mais mais mais bu ñu xoolee impact bu muy def wala boog dépendance mun naa wax sax dans une certaine mesure addiction la mujj nekk ci nit ñi quoi la la connexion internet. c'est-à-dire da ngay dem ba da ngay jàpp ne que ça c'est indispensable dans ta vie. alors est circonstances yi ñu toll yëpp. ak li mu ñuy jaral yëpp. Euh, do do doonul baax aussi bu ñu demee ba circon ba situation politique toll ci ci réew mi ñu xool une autre manière de faire au lieu de de de suspendre carrément la la connexion internet par exemple alors TikTok xam nga jékki nañ saa ñu suspendre ko au Sénégal. Mm-hmm. Mm-hmm. est-ce que doonul gën ñu cible ay ay ay réseaux euh, euh, sociaux. sociaux suspendre leen benn yoon au lieu ñuy ñuy ñuy dagg la connexion internet. léegi euh, léegi lii saa ko waxee rek dafay ñëwaat ci régulation. li nga xam mooy régulation. waaw loolu régulation mooy régulation. naa mos nañu si waxtaan waxtaan bu xóot. may la bi mu njëkkee dégg par exemple Sénégal ñu ne dañuy xalaat bon xam nga dañ ko conseil état wala dañ ko conseil ay nit. ne léegi dañuy jéem a xool ni ñuy réguler réseaux sociaux yi. def naa mos nañu waxtaan may leen euh, man bëggoon naa xam vraiment euh, ñiy def ñiy conseiller nit ñooñu ñu leen wax réguler ni ñu koy defee. Mm-hmm. parce que ñu bëri bëri bëri xëy na ñu a boo xam ne yow nekkul sa dëkk. Mm-hmm. waaw serveur nekkuñu sa dëkk. Mm-hmm. Euh, ah, loi yi nga xam ni mooy mooy mooy mooy régir réseaux sociaux yi. Mm-hmm. nekkul sa dëkk te loi yooyu ay eh, eh, eh, euh, nekkul sa dëkk. texte yi nga xam ne moo lay lié ak contrat bi lay lié parce que amu fi kenn koo xam ne da ngay dugg si benn réseau social boo xam ne signé woo contrat. te contrat lu la neex lañ ci def mi ngi mel rek nit nit abal la abal la euh, abal la dara jaay la dara ba noppi. ngeen signé contrat mu ne waaye su ma saa yi ma neex mën naa ko récupérer te du ma la remboursé. ba pare nga signé ko. xëy nga xëy benn bis mu muy récupéré nga dem porté ko plainte mm-hmm. mais bu la ne mais bi nga ko xoolee ne mais pourtant moom ne woon na la ne dafa la jaay mm-hmm. mais saa bu ne mën na ko nanguwaat te du la mm-hmm. foo koy yóbbu donc bi aussi mooy euh, réseau réseau de contournement yi ñu bëri seet nañ aussi bi ñuy na ñu bëri bëri dañu bon loolu du secret euh, ñu bëri mën a utiliser ko donc loo ko tëj tëj tëj tëj tëj am na ay système yoo xam ne nit ñi léegi te damay gis ay nit ñoo xam ne mosuñu jàng école ani B mhm. mais di manipuler mhm. VPN di ko installé mhm. mais cela ne lii sax dafa dafa dafa tax ñu bëri bëri nekk ay experts si informatique donc léegi xëy na def nga benn benn tëj nga benn kii mais am nga beneen beneen euh, beneen euh, expertise boo xam ne yee nga ko si si si nit ñi loo xam ne xëy na euh, wër na wër mujj na wër ndomb bu ñëwee question bi nga si application yi application yi Euh, mën nga bu la neex nga cibler loolu li technique la. Mhm. mën nga cibler application par exemple bii parce que application boo gis suy dugg am na fu muy jaar. Mhm. Mhm. mais mu nga ni nga ni nga ni biir rek. biir comme li ñuy jàngal. dafa am fu ndox fu ndox di jaar. ak ak fu lekk di di di di di jaar. donc donc bu fekkee fi nekk fi ndox di jaar dañ ko tëj. ndox du fa jaar donc mën nga ko defee noonu. donc euh, restriction réseaux sociaux yi mën nga tëj lépp loolu nag aussi mën nga cibler ay réseaux sociaux ba pare daa daa daal leen tëj. mais soo ko defee xëy na yow yaay sonn. mais réseaux sociaux du sonn parce que boo seetee wax naa leen ko euh, euh, ay Facebook ay yu noonu ku si nekk am na plus de de deux milliards d'utilisateurs yoo xam ne chaque jour ñu ngi connecté wu. Mm-hmm. donc boo boo ko tëjee pour benn euh, cinq millions wala six millions de de de de d'utilisateurs. yaakaaroo mu am benn impact si ñoom. dina dina métti ñun parce que suñu dund li si ëpp. te ñun ñoo ko teg suñu bopp parce que ñun ñoo dem ba nga xam léegi internet mënu mënuñu dund sans moom parce que boo naa moo ci ëpp que liggéey bi. d'accord. perte de temps bi moo si ëpp moo si ëpp que liggéey que la preuve si yi nga yi nga wax ni yëpp boo ko boo boo ko xoolee mhm. booy défilé mhm. c'est rare nga gis si lu lu lu am njëriñ lu instructif instructif c'est d'accord léegi léegi bon c'est si bon ah nga mën nga ma def sëñ euh, kii léegi dama bëggoon déjà ñu ñëw ci euh, euh, beneen aspect boo xamee ne que maanaam dina dina dina baax aussi ñun ñu ñu ñu bàyyi ci xel moom mooy alors li jëm ci maanaam quotidien wu sénégalais bi <laughs> bon c'est c'est on reste toujours dans le cadre donc de l'utilisation de de la connexion internet mais est-ce que aussi présentement jéemul jarul alors ñu boole ko ci li nga xamee moom mooy alors éducation euh, jëmale ci wàllum internet cest dire jéem a xool parce que boo demee ci dëkk bu mel ni Chine. am na noo xamee moom la ñuy moom la tàggatee seen seeni seen i pour mhm. utilisation internet cest à am na heure yoo xamee ne que dañuy couper la connexion internet. Mhm. pour que ñu mën a concentré wu nekk dans dans dans la chose pratique. am njëriñ waaw lu am njëriñ. est-ce que c'est pas c'est pas encore le moment ñu jéem a alors éduquer un peu le Sénégalais dans ce sens. Euh, bon loolu defe naa tamit yàgg yàgg nañu si waxtaan plus dix ans maa ngi waxtaan defe naa kii sax war na am am lu lu mu ci fekkee uh-huh. euh, yàgg naa wax ne euh, Sénégal. Uh-huh. dañu dañu révolution numérique bi. Uh-huh. dañ ko raté. parce boo gisee ma ni dañ ko dañ ko raté mooy. li nga xam ne moom la ñu waroon a jëriñ mhm. parce boo ko seetee jël Nigéria rek ngay jël parce que sooy comparé nga ko ak sa mbokk boo ne na euh, kii mhm. boo ne mhm. euh, euh, Nigéria li ñuy jot si si am na année boo xam ne li ñu jot ci investissement numérique yu jóge extérieur ëpp na un milliard de dollars ay nit ñoo ñëw xool ne kat fii nit ñi xarañ nañu bu ñu leen jàppale ji dañ dem ñu ñëw jàppale ñu mais Sénégal euh, man mosuma fi gis benn société boo xam ne société numérique boo xam ne. Mhm. dañu ne kii zéro la commencé xëy def ay chiffres ay ay mhm. numérique waxuma télécom de waxuma kii opérateur. parce que saa yaa ne rek opérateur la xalaat. tey ñoom si business lañu nekk. Mhm. opérateur business lay def. lijjantiwul ay ay social lijjantiwul ay luy jaar yoon Mhm. moom la lijjanti te malheureusement c'est ça fii Sénégal problème boobu loolu la am donc suñu nee numérique bi ñoom ñoo ci bénéficié je pense à mon avis c'est mhm. mon avis personnel mais boppam cest à nga bëgg expliquer comme quoi que numérique bi mhm. opérateur de téléphone yi ñoom ñoo ciy gën a bu baax mais ñoom ñoo si ay centaines de milliards d'accord fii ban Sénégalais nga gis mu mu mu nekk milliardaire si numérique numérique boo numérique laa waxuma ay ay dañ ko raté ci ci ci productivité. Mm-hmm. dañ ko raté. d'accord waaw ak ak sur le plan financier mais bu dee utiliser ko moom defe naa temps d'utilisation inter Sénégal moom suñu def statistique àdduna bi defe naa suñ si jiituwul euh, euh, ñi ñi raw du du du bari donc loolu c'est très c'est très important li li ma la wax nii parce que euh, man gëm naa ni bis bu ne ma wax ko dañ Sénégal ni mu mën a lijjanti si si si si li mu mënoon a génn ci ci numérique numérique bi. Mm-hmm. pour emploi yi ngay gis nii yëpp. mais Sénégal moo na moo na ko lijjanti ñun numérique moo na ko lijjanti bu baax a baax a baax bu baax a baax parce que ay xale yu xarañ rek ñoo fi nekk. mais malheureusement dañ ko dañ ko dañ mais je me rappelle de de de euh, euh, xale bi ñu tuddee Souleymane je sais pas Diagne quelque chose comme ça mi nga xamee ne que moom bokkoon na ci ñi nga xamee ne wane nañ seen xarañte ba décelé yenn ci ay failles yoo xamee ne amoon na ci euh, maanaam système de protection bu ministère de de de de de l'intérieur. Mm-hmm. mais dama bëgg déjà ñu ñëw ci loo xamee ne que tout à l'heure da ci ñëw professeur mu nekk lu bëri loo xamee ne que duñ koy faral puis c'est assez dangereux mooy alors contrat yi nga xamee ne que utilisateur bi balaa muy am accès ci réseau social bi dina ko dina ko accepter si na ko signer alors yow nga wax tout à l'heure que ne donc képp koo xamee ne que sénégalais wala foo mënti nekk di nga am pour accepter loolu c'est-à-dire signer ko mhm. te yow doo ko liir doo xam exactement mhm. les tenants et les aboutissants mhm. euh, ñu ñu serveur u réseau social boobu nekkul Sénégal alors que l'autorité Euh, bàyyi ay citoyens ñuy am accès ci loolu noonu c'est-à-dire Euh, c'est comme si autorité bi amul accès wala bokk mënul protéger ay ay ay ay ay ay ay citoyen euh, parce que alors citoyen bi mu ngi engagé wu ci loo xamee ne que moom xamul fan mooy fa mu ne ba pare di joxe alors ay euh, données personnelles mooy bi maanaam mu ngi enrichir base de données wu euh, li nga xamee moom mooy réseau social boobu di ko utiliser peut-être à d'autres fins mm-hmm. et état bi ci boppam muy nguur gi euh, sax en réalité bu dee dañuy wax dëgg rek maîtriser wul exactement ce qui se passe ci ci utilisation amu ci amu ci contrôle mm-hmm. c'est assez dangereux ah, léegi euh, répétition lay nekkaat rek mais comme mm-hmm. on dit la répétition. li nga fi wax nii yëpp. Ah, peut-être waxoon na ko mais situation bu dëkk bi ak restitution moo tax génn kañ lañ ko. ko gën a jàng. donc loolu noonu la koy jàppee rek. Uh-huh. léegi euh, boo seetee loolu lu tax mu metti mhm. euh, mooy exemple may joxe xaal comme sama mbokk sëwén yaa ngi fi mi ngi nga nekk si benn benn benn benn kër mhm. benn benn ëtt mhm. kër wër la moom benn mango bu mag bu nekk si digg bi boo xam ne day day si si digg bi la nekk mais kër yëpp la la la la branche yi egg yow nga gis mango yi bon sa mbokk sooyee ñoom ni ñu ciy doyee moom aji mango bi daf ko firi lekk ñoom ñu ngi koy jëriñoo am kenn koo xam ne moom mango bi bu saay wàccee da koy bale daa daa da koy sànni ak kenn koo xam ne euh, mango yi day wàcc mais da koy sonal léegi moom bu fekk dafa décider léegi mango bi neexu ko ban option la am est mën na dagg dagg garab bi si biti mënu ko parce que garab gi moom juróomi kër ñoo ko bokk li mën def mooy dagg garab yi nga xam ne li ñëw ci këram lay lay dagg noonu la mel mm-hmm. c'est-à-dire moo de coupure boobu nga dégg boo da ngay dem instant boo xam ne benn option kese nga mooy coupé parce que amoo si benn option li si des yëpp yëpp yëpp moom moom moo moom moo ci dara yow

parce que yow amoo choix xam nga yow bu fekkoon par exemple yow euh, amoon nga sa sa numérique. Mm-hmm. amoon ko. Mm-hmm. xëy na dina tane mais loolu aussi dul yomb parce que loolu du dëkk yi ko am yëpp euh, dañ ko liggéey boo ay ay Russie. Mm-hmm. ay Chine xam nga am na dëkk yoo xam ne TikTok amu fa Inde par exemple TikTok dañ ko tëj. parce que am na dëkk yu bëri yëpp dañ jàpp TikTok amul njëriñ dañ ko jàpp. parce que TikTok euh, bi nekk Chine. bokkul boo ko laajee loo loo loo bëgg a nekk. dañu wax ingénieur laa bëgg nekk pour développer. Mm. am na ñu bëri bëri boo leen laaj dañu la wax tiktokeur laa bëgg nekk fii Sénégal am na ñu. ah <laughs> tiktoker Mm-hmm. wala wala influence même bu ñu ko waxul aussi ñu ngi nekk ci ci non non mais non la koy wax man mm-hmm. xamante réseaux laa dëkk damay gis nit nekk yow loo bëgg nekk mu ne son laa bëgg nekk parce que tiktok a gën eh. da lay wax ne laa bëgg mm-hmm. nekk moo lay wan ne war nañ def benn benn éducation bi nga wax ndànk boo xam ne jéem a xel yi ji xamal ne que numérique mën a développer dëkk mais aussi mën na la delloo ginnaaw parce que boo seetee si réseaux yu bëri boo ci demee. Mhm. boo boo parce que li grave mooy ak algorithme yi pour tontu sa question yi. Euh, ñun ñii ñooy produit yi. Mhm. bis ma leen di demee mais réseaux sociaux yi nu ñu def am xaalis est-ce que mooy Google wala wala Instagram ñoom ñu ne waa tey dañ lay jaay benn café wala saako ceeb pour sama mbokk soñ ak saareen yi. Mhm. duñ la ko def. donc yow information yi nga fay dugal ñoom moom la ñuy jël di ko jaay par exemple ne ah. gis nañu daal koñ koñ bi daal ay saar ay soor ñu fa bëgg dañ ceeb léegi ñu gis par exemple keneen ku nekk fii di jaay ceeb ñu connecté leen mm-hmm. léegi koy jaay mm-hmm. ñu ñu foofu nga données yooyu nag mooy donc finalement ñun ñooy produit mm-hmm. donc ñun la jaay pour am xaalis comme nag xaw na toon naa sa question. professeur ci foofu laa la bëggoon laay tuuti parce que en général damay dégg ñu naan. ñun dañoo comprendre en fait luy kiiw réseaux sociaux luy luy njëriñam en fait. parce que bu ñu ko bu ñu nee réseaux sociaux rek ñenn ñi dañoo yaakaar ni dugg fa def ñaawteef. wala wi liy sa morom. wala def ko naka su dul noonu moo tax moo ko tax a jug. wax ko du loolu su ñëwee sànq yaa ngi doon wax ci wàllu commerce bi nga xam ne Sénégal ñu ngi koy def mooy vent en ligne yi mm. mm. ñu ci bëri tey ji ñu ngi ciy am seen gagne-pain ñu ngi ciy dund bu mm. dund boo xam ne macha allah te yooyu yëpp c'est à travers réseaux sociaux donc bi mu amulee loolu amul woon muy càq-càq comme ñi nga xamante ne ay vente en ligne la ñuy def seen kër la ñuy nekk genre ci réseau bi la ñuy dugg poster seen i produit pour mën koo jaay donc mu am ñoo xamante ne xamewuñu ko noonu déjà parfois da dégg ñu naan te lay nangoo ni mu lay nangoo mooy aimé bi nga doon wax léegi da nga gis benn produit bu ñuy jaay nga aimé mhm. ci aimé boobu nga aimé si la ñuy xam ne kii moom dafa focus ci affaire bi mhm. donc tout le temps loolu lañ lay indil mhm. loolu ñu lay indil chaque fois mooy wane nangu nañu sa yow déjà jël nañ la moom nañ la donc dañ lay buuxal chaque fois li nga xamante ne rek moom ngay ñu a profité ci ne mun nañu tamit mun nañu leen nangu comme ni ñuy nangoo des ci genre yu mel noonu au ñuy dem di def yeneen yi nga xamante la di wane suñu réew bu amee guerre wala bu amee yenn yoo xamante ne naka su dul noonu bay waral tax sax muy moo indi lii tey li mhm. am ni récemment ñuy tëj euh, données mobiles yi nga xamante ne rek moo ñuy permettre des fois ñuy liggéey mhm. waaye itam moo ñuy permetre aussi ñuy am euh, information yi nga xamante ne rek euh, mënuñu ko am si en face nit ki wala mun mënuñoo gis nit ki. Mhm. donc pour man réseaux sociaux yi war nañ ko utiliser ñun yi donc laay wax. Mhm. parce que li fi am je ne pense pas que peut-être am na yeneen yeneen mhm. mais parfois dañuy cibler tout temps naan sénégalais ni muy utiliser réseaux sociaux. bokkut ak yeneen réew yi nga xamante ne rek ñoom mun nañ ne fa la fa la waroon gën a mën a euh, amee impact ko suñu suñu réew fii Sénégal. effectivement donc loolu mooy ñëwaat si li li ma la wax rek. Euh, r bi dañ dañ fait. loolu kese la. ni ñu mel rek ñu ñu ñu ñu créé ay ay scooter comme ni ko waxee nii rek. Mhm. xam nga scooter Sénégal moom am na njëriñ parce que livraison bi rek rek doy na ci. bu mhm. fekkoon ne scooter 90 pour cent yëpp dañuy dañuy mais su boobaa kon scooter du am am njëriñ donc noonu la mel. mbir mi du du scooter bi wala réseau social bi. nit ñi koy utiliser si boppam ñooy problème donc li ñu war a def mooy li nga wax sànq mooy fexe ba nit ñi changer changer jikko yi. jikko yi dafa am solo parce yëpp jikko yi rek la ñu fa yóbbu man jàpp naa loolu. parce boo seetee par exemple euh, TikTok. Mhm. jëlal par exemple kenn kuy saaga rek. soo xasee ba bés benn yoon rek xoolal waxuma sax moom ne képp kuy saagalu saaga mel ni moom dañ dañ la koy yónnee mhm. mais jëlal koo xam ne day dafa jël plat euh, bëgg bëgg bëgg bëgg ceeb comme sama saareen ji sama sowen ji mhm. xoolal boo xasee ba def ko ñaari yoon rek képp kuy jaay ceeb dañ la koy yónnee mhm. donc li nga li nga réseaux sociaux moom moom day toog fi mu toog rek xool xool li nga bëgg mu la koy jox donc defuñu dara donc soo gis ñaar nga am option la mooy a changer fexe ba ña nga xam ni comme ay Nigéria ma laaj comme comme exemple. Mhm. ñoom ñu ngi si bu baax a baax di si génn baax a baax. Mhm. bon ak ak pays européen dama si génn mais pour man daal problème bu Sénégal principal problème Sénégal réseaux sociaux yi. Mhm. mooy jikko yi la ñu a defaraat. mu am impact si utilisation bañ fa si ñu ko defee gëm naa ni mën na am njëriñ. léegi léegi relatif ak yow sa sa sa sa xam-xam bi nga am ci wàllum internet. alors tëj ko dafa gën ci réew walla utiliser ko dafa gën. par rapport ak circonstance bi ñu bi ñu nekkee nii. tëj ko moom musiba la. musiba la waaw tëj donc c'est c'est la liberté d'expression. bàyyi ba mu pare bàyyi ba mu pare bàyyi ba mu eggale <laughs> tëj ko moom musiba la da nga ne par exemple euh, ñëpp xam nañ ne ceeb. xam nañ ko ceeb dafay day day day day feebar. mais nag dafa a ceeb yow. ceeb bi non xoolal soo gisee soo gisee soo joxe exemple boo nee cyber cybercriminalité mm-hmm. cybersécurité ñu bëri dañ dañ euh. du dara il faut nga wàcce ko niveau boo xam ne nit ñi dañuy euh. comprendre li wax. par exemple suñu ne lii lii baaxul. Euh. bañ ne buñ ne parfois dañ mais ceeb ñëpp xam nañ ne xam nañ ne baaxul mais dëgg nga xam nañ ko mhm. parce boo si yàggee dalee feebar mais est na ceeb bi uh-huh. léegi noo koy gérer léegi ba ba ba ba ba ba koy gérer tout est question de régulation noo koy mooy léegi dañuy expliqué ne ceeb bi kat mm-hmm. euh, waroo si dépassé par exemple juróom-ñaari kudd mm-hmm. waxuma kudd luus de <laughs> waaw donc noonu ngeen da ngay xool dara loo xam ne mënut a ñàkk uhhuh. nga nga xool noo ci orienté nit ñi bañ jëriñoo ko loolu kese la uhhuh. lépp loo gis àdduna rek am na musiba mais tëj ko moom uhhuh. du yoon léegi fexeel léegi ban euh, technique si yoon boo xam ne dañ dañ si jëriñu man lool lool loolu laa gis comme comme comme solution ba pare aussi aussi nga joxe le bon exemple aussi parce que léegi dañu gis ni tere la ba noppi te pare moo jiitu bon je pense qu'on a fait le tour hein, euh, euh, euh, euh présentement donc à à moins que Alioune Sow peut-être am mhm. lu mu mën a. c'est-à-dire man question rek la la la la la bëggoon poser. Mhm. par rapport au fait parce que dama dégg sànq. Mhm. suma sang bi wax wax lu am solo par rapport ak gain minimum de gain bi nga xam ne. Sénégalais moom la ñu am ci ci ci. ci ci réseaux sociaux yi. Ah, mais ana lu ko waral lu tax lu tax ñun du ñu mën a gagner xaalis ci mbir mi. est-ce que c'est parce que dañu tënk euh, wala wala est-ce que dañu amagul xam-xam dëgg-dëgg pour mën a profiter ci situation bi pour par exemple def ay multi euh, multimillionnaires parce que tout simplement ci euh, mbir mi la ñuy liggéeyee wala ay milliardaires même à la limite pourquoi loolu amul pourquoi mm-hmm. toujours c'est les étrangers ki en profitent les étrangers je parle de l'extérieur mm-hmm. mais képp ku nekk Sénégal mm-hmm. mënoo gagner beaucoup d'argent comme li nga xam ne am na ci yenn dëkk yi tel que le Nigeria. Nigeria ou, ou, ou d'autres même euh, pays occidentaux boobu rek doy na boobu rek suñu bopp lañ am tax ñun lan mooy différence bi au Nigeria ba ñooñu réussir à gagner de l'argent alors que ñun. pertant euh, euh, lay def waaw ñun mënu mënul dem quoi lan la c'est quoi le ah, problème. léegi à part quelques nga xam ne moom la les petites. mais loolu loolu sax du dara léegi man sama sama sama xalaat mooy leen. Mhm. pour man problème problème vision la man laa ko jàppee. Mhm. vision stratégique parce que aussi. Euh, lépp loo gis. da da ngay da ngay da ngay parce que par mun naa sama exemple man man euh, Silicon Valley Californie foofu foofu laa nekk fu laa jàng fa laa liggéey. Hmm. bu fekkee naa euh, internet réseaux sociaux yi ngay dégg nii ak ak start-up yi ngay dégg nii jugee zéro dem ay milliards fekkee naa ko. lu loo xam ne fekkee ma te xam naa ni ñu koy defee problème moo nekk problème pour man ci coté côté numérique. Hmm. dañ lañ lañ ci am. ba jox la benn exemple bu simple. te loolu par exemple opérateur yi dañuy gis par exemple nit day ñëw. Euh, ne am naa benn concours bu may def 5 millions premier prix 3 euh, euh, millions deuxième prix 1 million troisième prix léegi ñoom ñu bëri dañ koy def recherche yi ñu waroon fay ay ay santé au lieu que léegi ñëw dëkk na léegi 1 milliard yi ngi nii. dafa am recherche par exemple pour saa yu ñu gisee émission boo xam ne day wax par exemple si technologie rek. mu mu envoyé am information xam nga na nekk. Mhm. parce que ay ay algorithme la. Mhm. léegi ñoom au lieu ñu fay ay cent 10 milliards. pour pour nit defar ko wala étude defar ko day ñëw si benn dëkk ne xale yi am nañ benn kii ku mën a defar logiciel boo xam ne day def loolu xale boo xam ne mosul teg cent mille francs dégloo ci loxoom nga proposé ko cinq millions mais day naaw yow nga ñu jël cent xale ñu xalaat réfléchir bind produit yëpp nga jox kii cinq millions jox kii un million jël kii bi yow yóbbu ko sa dëkk mm-hmm. donc ñun ñun ñoo jëriñoo ci suñu suñu xale yi fii mm-hmm. mais étranger ñu ngi ci jëriñoo bu baax a baax léegi nag pour man jàpp naa ne aussi euh, liggéey bu nekk. Mhm. li ñuy wax euh, kilifa gu ma wax na ko Sénégal lépp loo gis si si si si si lu war a dox da nga koy mhm. jox ku ko ku ko ku ko xam. ku xam ak ku mu ñor mhm. parce que soo ko joxulee ku ko xam musiba la. soo ko joxee ku xam te ñoroo ko tamit fi ko daan njukki dem yoonam donc vision pour man moo ñu manqué ak nit ñoo xam ne xam nañ ko te mu ñor leen man loolu laa jàpp comme mooy problème bi mm-hmm. d'accord alors pour pour pour étayer li mu wax nii dafa am benn xale boo xamee ne que quinze ans la am ah mm-hmm. quinze ans la am elle il fait partie des rares africains yoo xamee ne que dañuy liggéey ci wàllum création alors robot mm-hmm. te sénégalais te sénégalais mais mais malheureusement malheureusement maanaam il ne reste pas au Sénégal constamment c'est-à-dire à chaque fois donc à l'extérieur dañ koy yóbbu. Mhm. mu comme li ngay wax tout à l'heure c'est-à-dire dañ koy yóbbu exploiter ko donc euh, mooy mooy li ñu yàgg di wax rek c'est-à-dire la la de des cerveaux cest dañuy dem ba ñun mënatuñ ci dara parce que tout simplement y pas une politique boo xamee ne que exemple am na benn nit bu ma fi mës a dajal. bu ma fi mës a dalal quand on parle de de de de du développement personnel d'entrepreneuriat demee noonu. Mhm. alors euh, malheureusement alors ce qu'il nous mooy Sénégal amul. école yoo xamee ne que dinañ former nit ñi en tout cas lu yëm ci wàllum développement personnel. Mm-hmm. former nit ñi ci lu aju ci wàllum entrepreneuriat dès le bas cest dire nit ki mën a alors génne li nga xamee mooy alors le le le le génie qui sa personne. Mm-hmm. c'est-à-dire il faut nga dem ba tollu vingt ans vingt cinq ans trente ans. Mm-hmm. doog a xam li nekk ci yow nga taxaw ne alors je vais je veux ou bien je veux faire cela. mën naa la si indil euh, loolu mooy Euh, xale bi. Mhm. yaa koy accompagner. Mhm. mais fii ku nekk dañuy gis benn xale boo xam ne da nga gis ne eh, kii xale bi de. Mhm. xarañ na si dara. nga nga gis ko muy manipuler ay ay oto oto oto senkal yooyu ñu def noonu. def ci moteur nga ne eh, kii de kii de boo ko jàppalee mu dem. kooku mu dem yow yaa koy gis. daal di koy encadré ko ne ko ah kii kat encadré ko teg ko teg ko si yoon. encadrement boobu pour man moom mooy moom moom moom moo jafe. parce que fii dañuy dañuy yaakaar ne nit. da nga ko jox xaalis rek mais fii boo ko yónnee ñetti xaalis diggante takk yebbi ak ak ak ak kii mais fii loo fa jox mu dem donc nit ki da nga koy da nga koy fekk ci li mu nekk mhm. nga pousse ko mu dem mhm. man loolu loolu te doo loolu nag moo ñu manqué mais malheureusement mhm. euh, fuite de cerveau mi ngi am bu baax a baax mais xam lu garaaw mooy la gis nga xale xale bu bu euh, intelligence. Mhm. day day dafa am instant boo xam ne boo looy gën a mag muy gën a wàññeeku. Mhm. xalaat bu gaaw. Mhm. comme doole rek daw. donc léegi gis nga xale da ngay jël entre entre quinze ans ak vingt cinq ans ngay profité si moom. bu dépassé vingt cinq ans ba am am soxna yebbi commencé kii rek ak ak ak am borom kër rek. da gis day day c'est normal société moo koy def noonu. donc mais yëpp. encore une fois problème mu mu vision la ak ak stage te man si côté numérique moom. Mhm. dañ parce que li li gën a jafe. Mhm. mooy xale buy tekki bu xale bu yeewu. bu yeewu est xam nga nekk ñi lu ñu amee xale réseaux sociaux là. Mhm. besoin la ñu kii Facebook. exemple mais day dafa toog gis na par exemple école bu mu nekk. Euh, euh, dañu tasaaroo kii day nekk nekk fii mu créé application bu ndaw comme ça léegi ku nekk di nekk sa nekk mën a wax ak sa morom te doo bouger. ñu def ko en tant qu'étudiant ñu ne mais lii keneen copier ko xëy rek seen àdduna bi kii ko développeur yi nekk ci léegi nag ñu léegi nag ñu ñu mu mu ñeneen ñoo nekk mm-hmm. euh, kii bi li ñuy wax encadrement package boobu mm-hmm. pour man moo ñu manqué mm-hmm. mais suñ pour suñ ko amee ba gëm naa Sénégal côté numérique kenn du ko ci raw te day dem bu baax war a def euh, parce que loolu solution bi tamit baax na ci qu'est-ce qu'il faut faire lan moo responsabilité gouvernement bi et puis lay jëriñ NTIC li muy jëriñ mooy mooy waaw xam nga sax boo seetee moo moo moo nouvelle bi sax léegi dañ ne parce que loo xam réseaux sociaux rek def na vingt ans def naa ñi am vingt ans léegi def naa léegi ñu ngi xaat am am am am jigéen am borom kër góor xool ni ñu fexe pare jàng daal di daal di génn ut soxna donc donc teg bi moo tax mais dafay li muy njëkk def mooy résoudre benn résoudre benn besoin dañ njëkk def benn problème mais comme ni ñi rek mais man euh, code naa émission bi si fa WhatsApp laa ko defee ak ak ak ak ak kii. Mm-hmm. donc besoin de résoudre. Mm-hmm. léegi su résoudre besoin boobu nag léegi. Mm-hmm. mu am ay nit ñoo xam dañ koy soxla. après di monnaie pour am pour am résultat résultat résultat yu jógee si besoin bi exemple bi gën a a baax am na ay xale yoo xam ne supposons par exemple fii bis bu nekk par exemple nga for benn benn sac. exemple sax bëgg sac mais boo foree benn sac buntu Walfadjri li ngeen ñëkk def mooy xaar mu yóbbal fajee comme ñoom comme ça euh, nday awa nday awa la ah. mm-hmm. mën a wax si kii bi ab ah, fanañ benn sac bu def passeport ak ak lii mm-hmm. lan moo tax mënuñu créer benn application boo xam ne saa yoo foree dara mm-hmm. da fenn foo koy yóbbu foo xam ne dañ koy léegi dañ koy organiser aussi lu ñu teg si yoon la ñu nit boo fa demee mu kii comme ça léegi ku ñu force ku réer sac boo demee par exemple fay fay cent francs ñu xool ndax mi ngi bu fa nekkee ñu joxal bu ñu ko joxee nga fay dara mm-hmm. donc loolu mooy loolu mooy loolu mooy ci exemple laa joxe nit sax mën na ko def ah mm-hmm. loolu nag ay besoin ngay jël yu bëri di ko daj yoo xam tey bu suwaa mu dox mm-hmm. léegi benn dina ko soxla xam nga ne ah am na société bu nekk Sénégal boo xam ne loolu loolu daf koy def léegi nga proté état dimbali nga protéger ko comme ça parce que état mooy mooy état état du jox nit liggéey état ay conditions lay créer pour liggéey mën a am te kuy liggéey aussi ñu jàppale la ba kenn du la kenn la te doo sonn. loolu kese la suñ ko defee rek dem. <laughs> bi dafa yee benn solidarité virtuelle comme on le dit. Mm-hmm. léegi nit ñi nag di utiliser les réseaux sociaux comme benn instrument de lutte de dénonciation mais aussi de condamnation et de rébellion je peux dire. Mm-hmm. ñëpp di ku nekk di jéem a wane yow sa mécontentement ñii tamit en même temps nag réseau yi xaw xaw a nekk toujours en faveur de l'opposition mhm. peut moo xaw a nekk benn train bi nga xam ne frein boo xam ne moom moo tax ba ñu àgg fii nii yëpp mhm. mais naa ne doo fi géej moom si plateau bi ah. di nga fi dellu si waat ñu gën a waxtaan ak yooyu bu ko defee ñu bàyyi la nga tàggoo ak sa non non li li li li duuf si waaw ah, mooy waxtu balaa sama mbokk bi di ma <laughs> ah, kii bi yëpp waaw li mu wax quand même bari xam naa ni rek euh, il faut que mu mu mu mu mu dem xewlu mu dem non non man moom man moom defe naa xam nga saa ak soo ak du ma leen du leen mais dara quoi vraiment di sant di nuyu tamit production waa waa waa waa mouvement euh, bopp saxaar la locomotive mm-hmm. bon ñëpp xam ne daal Sénégal euh, ñun ñoo ko moom mm-hmm. bu yàqu ñëpp la yàqul mm-hmm. su baax ah, ñëpp la baaxal donc te kenn du mucc si musiba yi te ku ci nekk war nga def lépp loo mën. pour mhm. ñu aar dëkk bi sàmm ko ñoŋal ko ñëpp mën si jëriñoo Sénégal jëm ci kanam. jëm ci kanam merci beaucoup donc euh, alors comme ni ngeen ko gisee ah donc professeur euh, Cheikh Ahmadou Bamba Thiam moom la ñu dalaloon. Mhm. ñu addu jëmale ci ci li nga xam ne moom mooy euh, seetlu.